maa ngi lay fay ba biir loo ne sa fay ca la ma newoon rek bëgg fukk juróom tama ñaari ma am benn ba dem daay da nga soof nag si de réew mi waaw waaw waaw ndax da xew réew mi fam nga soof boo sooful doo xew boo soof fam nga ñàkk fay da daal tey ñu gis la si euh, bisu anaconda bi mu dox ci moom diggante moom ak alliance biram tey sa diggante ak anaconda waaw dañoo dëkk mu nekk sama gaa nekk sama lépp su ñu amee muy ñëw di jàpp ci entraînement yi contact yeeg yëpp kon bu xewlee dañuy bàyyi lépp luñ jàpp ñëw teewal ko ndax moom bàyyi faal la quoi di ko ñaanal yàlla mooy ko ndam ñu xam ne ñoo ñu gis ne lamb ji semaine bi passé dañ ko aj ndax xew-xewu jamono ji am ci réew mi loolu ban gis-gis nga si am. waaw c'est normal ndax àdduna moom ah, moom loolu ñoo ànd eh, booy eh, situation dëkk bi moo ko laajoon xam nga coow lu coow loo ne yàgg na mun naa ne presque deux ans trois ans xaw quatre ans ñu koy wax ci wax problème ay détails yoo xam ne booy am luñ dencoon seen xol euh, ñi si nekk euh, ñi nekk ci état bi am luñ denc ñi nekk ci opposition bi tamit am luñ denc seen xol euh, bañ nañ ko ba ba coow li bëree ba bëri booy yi nga xam ne amoon nañ denc li rek lañ mënoon a def jàmm am ñi nekk ñi ñi ñi mën a saaga. saaga ñi ñi a saa euh, ñi mën a taal taal bu ñu deful woon lii coow li du mus a jeex. en tant a en di ñaan yàlla xam nga comme ñi gaañu si euh, ñu si génn àdduna yëpp ci manifestation yi ñu ngi leen di ñaanal fi ñu jëm gënal leen fi mu jugee te boo xoolee ndeysaan ay yu ndaw yoo. ay xale yu ndaw ñoo xale yu ndaw yoo xam ne tey jii ñoom ci logique dañoo waroon a jàngi ñoo def amaana xamuñu sax méttiwaayu dëkk bi xamuñu tolluwaayu dëkk boo ci woowoon na ko coow li sax xamu ko. bilaay ñu bari na ñuy manifester te xamuñu lan la lan moo xew lan moo xew ba tax ñu manifester ni ñu daan manifester bu njëkk ak manifestation bi yàq alalu réew mi yàqu-yàqu yi bari na. waaw nee naa la tolluwaay la rek ah, di ñaan yàlla daal jàmm ndax jàmm ndeysaan ci la lépp xaj la lépp xaj xoolal ni ñu annulé ndax problème yi ay programme yoo xam ne ay nit investir woon seen xaalis ay millions yu bari ay nit ko ngay nit ku jaayante ba am benn place am. booy yu ñëw taal ko da ngay gis maire bu jaayante ba daaj taabulam bu bu six mille booy yu ñëw jël ko taal xam nga te kenn xamul ginnaaw yi sax suñu la mais dañoo mer rek waaw dañu naan jeunesse bi ñu gën a calmé wu ah te xam ne jàmm ci la lépp xaj quoi.